jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su bu ñu nee mois de mars sa xel day dem ci jigéen bu ñu nee jigéen sa xel dem ci yaay bu ñu nee jigéen sa xel dem ci sa xarit bu ñu nee jigéen sa xel dem ci société ndax yaakaar naa ni réew mënul avancer sans jigéen jigéen ñi nag bu ñu nee mois de mars xëy na bis la boo xamante ni dañ leen koy jagleel. di leen ci rendre hommage ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne ñu ngi koy def waaye jigéen yaakaar naa janvier ba décembre ñoom ñoo ko moom waaw trois cent cinquante jours yëpp wala trois cent douze jours yëpp trois cent wala quinze millions année bi yëpp dañ leen ko war di jagleel ñoom jigéen ñi ñu leen di jaajëfal képp koo xamante ni yaay nga képp koo xamante ni jigéen nga ñu leen ci delloo njukkal di leen jëfal bu baax a baax tey nag ñu invité xale boo xamante ni mu ngi nekk sàkku xam-xam bu père Birahim Ndiaye may nuyu bu baax suma papa père Birahim di ko ñaanal yàlla suñ boroom guddal fanam lool te mu ànd ak wér bari na loo xamante ne def na ko ci man moo koy jaajëfal bu baax ñu dalal Brise de mu nekk ci écrit ba di sàkku xam-xam di fa liggéey ñu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaan bi Brise maa ngi lay nuyu baax di la siyaar jiili ñoo ngi lay fay hmm. auzu billahi mina shaytaani rajim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si nañ te tedd bi hmm. di gërëm samay ñaar waajur. Hmm. di gërëm samay ñaar hmm. di gërëmaat sama yaay. Hmm. di ko gërëmaat. di ko ñaanal yàlla gudd fan ak yaram. di ko ñaanal sama papa di ko ñaanal yaay yëpp di ko ñaanal papa yëpp tamit. waaw di gërëm ñëpp daal sant ñëpp di gërëm waa wasaare. di di la gërëm di la sant. loolu sama xarit nga xam nga loolu. yow maa du tey dafa yàgg. waaw. dafa yàgg du tey. Brice ñaata combat nga def ci arène. moom bëri naa cinq combats. am naa trois victoires. Mm. am naa ñaari ñaari defet. deux defet Thiandoum moo ma daan ak Grand Mbagnick. kan Thiandoum. ak Grand Mbagnick men Grand Mbagnick <coughs> Grand Mbagnick moo daan. Grand Mbagnick moo la njëkk a déggal mu ñor. waaw moom daan daan ma jël ma naqari. nu mu la naqaree jël ba. mu ko mën pare mu daan ma. mu ko mën. mu daan ma. loolu mënul nekk nan ngay mënee nit mu daan la. waaw lamb la rek lamb moom kenn mënul wax lépp. Hmm. waaw moo Thiandoum yëpp di leen wax ne ay sambion lañu. di leen yàlla mooy yoon bi ñu tegu nii yàlla na suñu borom defal ndam. Hmm. waaw. nga ni ñoom ñaar ñëpp mën ngaa dajawaat ak ñoom ci làmb. cuune du daan ku ma daan leen daanaan nga. yow mi barke alxuraan. yow ku ma yow kenn lu wax ko mooy Brise. déet man lan laa xam ci yow. Ah, fekkee naa sa combat nga bëre daanu sa digganteeg Thiandoum 2 arène nationale. waaw ah, Thiandoum maa bëre moom daan ma ba pare ma jug nangu. nga jóg nangu. waaw nangu ni dalaa daan. nangu damaa daan. ban erreur nga def ñu bari keroog nee nañ sa condition physique dafa des. du condition physique du dara damaa nax daan ma dañoo bëre ma dem ba génne sama xees làmb mu sàcc ma suuf. mais dafa tibb sa tànk ak tànkam de. dama jël foo xam ne da ko peele. dama jël dafa jël si man foo xam ne néew na li ñu fiy jël mbër te doo daanu. Hmm. waaw parce que une ko jëloon si su ko jëloon ko jël si man loolu nit mënu fan la la jël. damaa damaa sulli si wokk la jël si suufu sévi bi. waaw mu perte équilibre. Thiandoum mooy ndaanaan. champion ndaanaan moo tax dama ne damaa nangu daan mu jël bu rëy. Mhm. waaw. depuis boobu ba léegi gisaatuñ la ci làmb ji promoteur yi ñoo la contacté wul yaa bëggul bëre wala yow yaa toog di xaar. damay wax damay wax combat sax as ma doon wax combat sama ménagère. Hmm. man tamit daa ma nekk si benn formation boo xam ne man ma ko doon boole dara. ma nekk formation dama nekk si benn liggéey boo xam ne mooy loolu te loolu noonu doon doon laaj doon laaj temps quoi. kon ma hmm. génn nañ si rek alhamdulilah. xam da nga def benn formation. léegi donte làmb bëgg nga ko mais formation boobu daf la ëppal importance. waaw parce que nga bëgg a boole ñaar yëpp nga ne na làmb ji xaar nga def ci formation. parce que athlète la ñu wax quoi ay ay ay athlète la ñu. Hmm. làmb lu mu boole dafa bëri làmb lu mu tënk dafa bëri du làmb kase kase kase kase. Hmm. waaw mun yàlla suñu borom mu tëj fii tëj fii. déedéet dañuy def dañuy ak ay ndaw lañu dañuy nekk fii nekk fii ba yàlla xool. ban côté la si tijji daal. Hmm. waaw. macha allah loolu am na solo ba tey yaa ngi ci làmb ji yaa ngi entraîné mais yaa ngi am métier di di ci yëngu. waaw ah, ma am naa métier yàlla suñu borom ma na ma hmm. am naa def naa formation garde corps am naa samay diplôme. Hmm. en même temps tamit soudeur tey su ma xamul fu su ma xamul fu ma jëm su ma neexee dellu port. wala ma dellu wala ma dellu atelier tey wàllu wàllu weñ lépp loo ma si jox ma defal la ko. waaw tey ñun suñu waajur tàggat nañu si loolu ba nga xam ne ñoo ngi sant yàlla mhm. amaana suñu jàng daweewul noonu sax wante am nañu si luñu jàpp boo xam ne tey fi mu dem si àdduna mun mun mun nañu kaa liggéey mhm. fi dem loolu ñoo ngi leen ñoo ngi ci sant di leen gërëm mhm. amaana nekk ñu xale dañ ci bàyyi si luñu neex dañoo tàggat ba dugal école jotee dugal nañu si école cher ñoo bëggul a jàng ñu génnee ñoom dugal ñu si métier te ba tey métier bi tey yàlla suñu borom na moom mun nañ si lépp de wante tey wàllu weñ loo si jox mun nañ ko defar macha allah macha allah. ci làmb actuellement boo ma doon wax sa catégorie ci làmb. Hmm. Brise ñan la jàpp ne ay adversaire potentiel am ñu mën a bëreel ci làmb. Ah, bëri na tey du ma ne sax parce que dafa guma dara damay tijji rek damay kii ma dama xam ne maa ay morom la ñu tey ku nekk ku nekk toog kii moo ñu boole grand Magic grand Magic da bëri mu ñaari 15 minutes mënu maa daan. mu bëre Ndiaye Tine def na. mu bëre moom premier round mu ñëw ñëpp mu jàpp leen fooy leen. maa njaay tin grand daan njaay tin waaw te ba grand Mbagnick moo la daan. mu moo daan mu daan la daan njaay tin kon da bëgg wax grand Mbagnick moo leen boole. waaye moom daan na Baye Mandione junior barki démb. jël bu rëy Baye Mandione junior avant avant moom njaay tin maam moom dañu njëkk wax mu tegg moo fa dem jëli kii man nag bañ ma ko mënta ñëwee maam combat la. Baye Mandione Baye Mandione junior. Hmm. amul combat la. bëgg nga njaay tin bëgg nga Baye Mandione. bëgg naa Baye Mandione. ñu ngi si jox combat bëri na ay ñoom taxaw leer suñu ñëwee ñëpp ay combat la. te pourtant combat yi ngay laaj des fois mbër laaj combat sax ma ne ko ah yow xamoo sa bopp mais yow combat yi ngay laaj yëpp ay combat yu neex la combat yoo xamante ne say morom rek. man tey wax nañ ma mbër séeréer bëri yoo xam ne tey pour ma ñëw pour ñëw pour maa sama combat bu mu taxaw man man maa dul def loolu. Hmm. tamit parce euh, ñoom euh, daa am du du du damay tëb rek ñu ne ma mbër bi ma mën a mën a bëri ak moom. Hmm. parce que loolu laam amatul loolu. Hmm. comme que làmb ji léegi ñoom gars yi dañuy ut lu neex da nga ut yoon bu am yoon rek. waaw. te jàpp nga ni ñu nga tudd nii ñooy nooy neex yi daal. non duñu ay nooy neex sax bàyyi ma njool ñoo wax man maa fi jóorlu benn mbëru séeréer di la may na ordinateur ko proposé wax nañ ma ko may leen ci bëri maa kii la. du question mun sax. waaw. man de sa waay dama bëriwul wax dëgg de. Ah, laa ilaaha illallaah. ordinateur bi de laa ilaaha wax dëgg de. wax nañ ma ko mais nag na dem na dellu simple ba na dem waaw bëriwul moom. waaw bëriwul moom xalaatu bu loo liggéey ba tollu fii jël ordre. non damaa bëriwul moom am naa loo <laughs> ordinateur ngay yow ngay wër di urjiloo ngeen moo ñoom ko bu yàgg. <laughs> maa ngi moom ne question ma ko ëpp ma doole mënu ma. waaw ah. yàlla xam ne daa ko bu bëri. mais yaram bi daa gën a fendi sa yaram. Hmm? yaram waaw non daa gën a fendi an tamit. Ah. bon loolu day bokk ci làmb. loolu dafa bokk ci làmb. Hmm. saa làmb ji lu yi def ñëpp mënuñ ko de. caaka nag mosuñu la ko proposé. caaka. Ah. caaka bëri ma moom. <laughs> promoteur bu la woon daal la caaga fexeel ah, fexeel giseeg moom rek xalaatu ma dóoree kuu ci ci baasa kalaasu jawe kay xaw la yu am fit ah, te woo la téléphone daal la caaka avance caakaa gi de bëri maa moom na xool leneen hmm. waaw booy fay non booy fay ñoo bokk parcelle booy fay moom mooy loolu te sama sama ndaa ah, sama gaay la borom hmm. baax la Doudou Sané hmm? Doudou Sané Doudou Sané Doudou Sané wax nañ ma ko bëriwu ma ak moom bëriwu moom sa waay moom doo bëri doo bëriwul ak ñoom. yow bëri dóor yi ngay bëri bëri waaw ah, kay. Ah, bëri ah, seen bàyyi suñu day tournoi am problème du garaaw. waaw bu ngeen dajee foofu bëri waaw suñu ndey am foofu bëri. mais ñoom dama see bëriwul ak kenn. Hmm. nañ jëli nañ nañ jëli nañ jëli seen mbokk yi ñoom seen biir ñu bëree. ñu bëree seen biir waaw ñu bëree seen biir. mais yow moom doo bëree ñoom. non du léegi de. actuellement nii promoteurs yi. Hmm. est-ce que yaa ngi yaa ngi leen di démarcher wala ñu ngi lay démarcher wala sa ménageur mu ngi dem ci ñoom parce que Brise actuellement ni ñu la gisee macha allah corpulence bi nga am Oh. dawe bi nga am ci làmb war ngaa mën a doon champion oh. lan sa problème surtout ikiri bi nga nekk sàkko xam-xam bu père Birahim Ndiaye ku ne ci ginnaaw père Birahim xanaa nga ñàkk koo déggal waaye boo ko déggalee war ngaa mën a doon champion sama père boobu mu gàcce nga laama wante yow jëli làmb chance la rek hmm. tey mun naa ne tey parcelle tey doo lim ñaari ñaari nit fa dàq bëri te doo fa boole hmm. wala sax gisuma ko hmm. ñu parcelle parcelle daj ku la lamb sens la. Hmm. tey da nekk da yàlla suñu boon da nga ñëw mooy teg ay tolof-tolof ma la sax ay tolof-tolof. Hmm. maanaam sant la. Hmm. sant la amaana un jour viendra mu baax. entraînement dañuy ñaan rek ñu daal ñoo ngi si lu ñu war a nekk. yoonu ndaw du gaaw saa fenn ñu dugg ñu si ñu nekk. ñoo ngi si entraînement suñu liggéey. lu yàlla def nañ xam ne loolu la. waaw te yoonu ndaw tamit du gaaw. waaw ba dèjà lépp luy lépp lu mbëri def ñoo ngi ñoo ngi contact booy su amee combat ñoo leen jàppale ñoo ngi dem din ñoo ngi def lépp waaw léegi des na du ñu yàlla du ñu ñeneen dañ koy bàyyi si loxo yàlla suñu borom subhaana taala. am nga jàppale yow. non jàppale hmm. euh, naa ba 10 heures di lu ma lu ma toggee añi. 10 heures ci suba. 10 heures si buntu kër gi di bëreeg mbëru gox dëkk sax laay bëri. grand mi mbëru dëkk la borom mar faafa. xam naa ko. waaw xam yàlla dem si yàlla yàlla suñu borom tamit su la soo dénk ay nit ñoom nit laa toroxal. Hmm. jour boo xam naa ne def nañ lépp wante ba mu ñëwee ba si état bi yàlla suñu borom nga ànd ak moom. Hmm. moo ne woon tey du du yóbbaale ndam rek. wante looloo tax sax ci bi am ay. complication jafe bëri naa fa lu waral ne ma daan parce que moom muy xam ne jour boobu grand bi tey soo soo soo soo waxul dëgg soo soo wane ban combat nga gën a métti dana naan moog Brise. soo wane ban combat nga gën a métti mooy moog Brise tax boobu jàppale bi des na. leen des na jàppale dafa des trop. actuellement nii am nga jàppale xanaa. waaw instant yii moom ñoo ngi sant yàlla moom. am nga ay ponkal yu ne sa ginnaaw. waaw instant yii moom gars yi wax dëgg yàlla sama retour bi moom leneen la ñuy wax. Hmm. waaw incha allah rabi. ah kon na la promoteur yi xool parce que ponkal yi moom ku nekk sa ginnaaw xanaa di nga am. waaw waaw yàlla baax na. nañu amal hmm. combat rek. incha allah hmm. rabi waaw. maa lay jaajëfal bu baax xale la boo xamante ne mu ngi nekk sa sàkku xam-xam bu père Birahim Brise wax na ci ay combat am parce que ku bëre cinq combat am trois victoires deux défaites ñaar ñi la daan yaakaar naa ne ay ndaanaan lañ ci làmb bu ñu nee Kalmu Ndour tudd euh, Thiandoum 2 nga xamante ne géejawaay la nekk moom it mu nekk xale boo xamante ne mu ngi ci lancé bu baax kon moom ndaanaan la ci làmb na ko xale yi gëstu fexe bëreeg moom moom na wax na bëriwul ak mbëru simple yi <laughs> xaw bi wale ko ordinateur def na allahu akbar tudd yàlla mu mel ni làbb la rek saa su ne xale yi ñu ngi ciy nekk di góor góor Brise maa ngi lay jaajëfal baax kontaan naa nag ci teew bi nga teew fii. waaw ñoo lay fay. Hmm. ñoo ngi lay fay bu baax a baax. Hmm. waaw di la sant di wax ne yow moom borom baax nga da nga amaat da ngaa nekk ndaw yaa ngi sa yoon. Hmm. te li nga nekk nii mu lu muy lu baax bu ko bu ko wàcc. waaw nekkal sa yoon rek. dina ñaanal daal jàmm di ko ñaanal ñëpp. dina xam ne champion nga waa di wax gën see nekk rek yàlla baax na. Hmm. waaw. ana gars yi borom États-Unis. gars yi moo ngi fi waaw Mohamed Mohamed Amar waaw sama waa ji baax jooju kooku tey lii ma bëgg nga jàllale ma parce que lii moom la tamit ba ñëpp bàyyee ba ñëpp bàyyee moom moo jàpp ku yàlla baax la ñu doon. voilà Mohamed Amar. borom États-Unis rek nga ne Mohamed Amar man xaw ma Mohamed Amar. non kooku yàgg naa ko wax muy muy muy kii sax kooku kooku la kooku champion la. xaw bool ak dara wax. Mouhamed Amar. billaay walaay taalaay. turandoom de moo gën ñëpp moo xar weer wa ñaar waa Màkka bañ ni déedéet. waaw kooku bool garab moo moo ngi def ay social yoo xam ne. ah xam nga moo ngi ay social yoo xam ne. Hmm. ay yoo xam ne kenn yéegul. Hmm. billaay walaay taalaay. Mouhamed woo ma joxal Mouhamed sama numéro. dama koy jox sa numéro mu woo la. ma xamante ne ku baaxee noonu. Hmm. itam di gërëm itam keneen koo xam ne ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul. mooy maam Daara borom Sandaga. maam Daouda comme moom depuis Mbapat la. ndeysaan. billaay walaay taalaay. kooku kóllëre la. Mhm. maa ngi dem bëri Mbapat ñëw lu ma daan jox si xaalis joxuma ko sa joxaguma ko sa arène. ku baax yoon ba mu jàppee ba léegi baax te jeune la suñu morom la comme ñun. Mhm. tamit di ko ñaanal jàmm. Mhm. di ñaanal waa Parcelles gépp tamit di gërëmaat sama yaay bu baax a baax. di ko ñaanal gudd fan ak wér gu di gërëm sama bàpp. di gërëm mafia bi yëpp sama gars yi ma àndal du su mel ne su ma limee damay juum. ay ñoom Bili Balla. Mm-hmm. ay ñoom Bas Essar Cek Cek. Mm-hmm. gërëm ñëpp waa su ma limee damay juum parce que gars yi tamit mention spéciale. Mm-hmm. ñooñu tey soo amee combat su la su la su la su kenn génnoo seen xaalis sax mën nañoo génn seen xaalis teg si ko taabal bi. waaw lu si mel ay ñoom këllëg ay ñoom réew mi ñoom maa leen gërëm su ma limee damay juum quoi. di leen gërëm di leen sant di gërëmaat parce que yëpp képp képp di gërëm sama waa koñ. waaw parcelle gépp daal su ma limee tamit damay jum bugg ma lim inte yi di ci gis seen bopp hmm. parce que mu ne brise tamit laa si hmm. gën a ndaw ba ku si gën a mag ñëpp samay booy samay booy lañ te ñëpp samay gaañ lañ hmm. waaw wax tamit a jàpp rek gën ñaan affaire métti na trop waan sant yàlla yàlla baax na di gërëm waa ñëpp di gërëm waa wasaare tamit waaw sa montage yi sa kii yi nga xam ne gars yi waaw ay borom baax lañu seen aadama waaw waaw siyaar naa ñëpp bàyyi am na moo koy jëfal bu baax moom Brice di ko jëfal ci kontaan ci teew bi nga xamante ni teew na ko fii ci wasaare làmb mbokki di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb jërë ngeen jëf.